di leen balu xaq di leen baal di ñaan suñ borom yàlla subhaanahu wa taala yal nañu dollee defal gudd fan bu ànd ak wér defal ñu jàmm ak tawfiq defal ñu dund bu barkeel ak jaamu yàlla bu ñu nangu ci barke yonent bi alayhi salaatu wassalaam xanaa ay kàddu yu gàtt rek yoo xam ne dañ ci massawu boroom xam-xam yi di ci massawu jàngkat yi ndax ñi ñu gis ne jamono ju nekk maanaam ku ñuy wax Mouhammad Ahmad Lo mu ngi leen di teg ay naqari xol leen teg ay gàcce di yàq seen teeyub dund ñu koy nëxal ci wàllu xam-xam ngir rek li ko ay nit foog boroom xam-xam yeggale ko ca dayo yu kawe kawe kawe te loolu lépp tege ci ay fen maanam dara du ca dëgg ca tolluwaay yooya ak dayo bu rëy bañ ko jox ca xam-xam loolu mooy fen wu rëy wi fen wu rëy nag su fekkee ne dafa nekk ab base boo xam ne ca lañ tabax mbir lañ ca tabax ay fen moo tax bis bu ne maanaam aw fen day yees rek waaye du nekk ba jëkk du nekk ba mujj buñ fàttalikoo ci gannaaw ci ay fan yu limu bari lu lees mën a fàttaliku lu fi Muhammad Ahmed loo wax ci xam-xam te du dëgg du jeex léegi loolu na su fekkee ni dafay répété wu mooy yàlla moo na weer jëmm jooju ak ña ko ngem ci liñ ñu jaay ci image boobu ci wàllu xam-xam ak tolluwaay loolu ak wor la maanaam dañu caa wor won ñu jëmm gëmloo ñu ci ay tolluwaay yoo xam ne dara amu ci moom itam mu gëmloo ñu ci boppam loo xam dara amu ci ay soppeem gëmloo ci moom itam loo xam ne dara amu ci maanaam ku xamul dara moo taxaw noonu te bis bu ne li muy wax dafay gën a dëggal ne kii jàngul jàng rek dafa am ñaar dafa am jàng am jàng dafa am jàng boo xam nit ki dafa am lu muy ciblé muy lu muy yóotu pour jot boo demee ci masaalikul jinaan moom la sëñ Tuubaa di wax ne xam-xam yi nga xam ne wala lëti suyidati dunya bihi wala biha loo xam ne xam-xam yoo xam ne nit ki daf ciy rëbb àddina xam-xam ba du sell nag du wér du foor itam waaye daal dana ko teg ci ay tappale yoo xam ne dana fexe ba fa mu jëm mu yegg bu fekkee alal la doon wuti mu àgg ci am alal bu fekkee ne eh, ab dayo la doon wut mu am ko bu fekkee ne ak ciiwute la doon wut mu am ko ca mais ndax xam-xam ba wér naag wérut nag loolu wu ko day tabax ak jëmm joo xam ne tolluwaay bii ak dayo bii ak naam gi bii lay am loolu nag wahabiya foor nañ ci tabax lu ni mel ñoo faramason yi ñoo man mën nañu tabax jëmm jaay ko nit ñi walaay bu àddina dawee tuuti rek nga xam ne sa tub dii lakkal ayaamu maa kunta jaahila wa yaatika min axbaari maa lam tasawwur bu àddina dawee rek nga xam ne nax nañ la ca njaay ma nañ la ca moomale jaay loolu ñuy tuddee ci fiq xaraar te muy am cim njaay di am ci sëy ak yépp mooy naxe boobu nga xam ne mën nañ cee fecc ab sëy ab njaay yi tam mënees na ko xàcc bu ca loola amee loola day am ci ay nit yoo xam ne dañu caa nax diñ ci gëmloo waaye am nañu teel a xippi xam ne loolu ay dóor la dara amu ci dara amu ca yàlla nag alhamdulilahi rabbil alamina moom rek moo yeeyoo ak cant bokk nañ ci ñi nga xam ne suñu borom yàlla xippiloo na seeni gët ci xam wor yooyu ñu lal ci jëmm jooju yim ñu lalal boppam moom ak yiñ lal ca kawam mbalaan yooyu yépp teel a naaw ci sunu kanam ñu xam ne ku dul daraa ngi nii waaw am yoo xam ne sunu borom yàlla ci làmmiñam la ko jaarale mu wax ko moom ñépp dégg ko te tele la 2 TV Mouhamed Lemine Dramé dalal ko te Mohamed Lemine moko ko fekke ji ci kërëm laaj ko ci mbiri fiqh ak fatwa Mom mu waxal ci lamiñu boppam ne fiqh du sama spécialité Mana nikut lo xam ne mom doon suivre di ko ba ni ma toll nii déedéet waxal ko lamiñam ne da ko bëgg rek bëgg daal ci lañ doon kor-kori di góor-góor xam nga kooku kon moom du moom moo war a taxaw nekk mufti yi ndax li ñuy tuddee fiq ak usul loola moom du yoonam wam doon jaar cam njàng moom leneen doon jàng te loolu kenn mënu koo laaj fi mu toll nii ay aqidaaki ay firaq wal madahibat nangam nangam doctorat yaak yooye ci loolu la ko am te loola sax ñoom ci jëmmi boppam wahhabi yi lañ cee jàngale ay fen la da du ca dëgg ndax ñoom dañuy tuumal yeneen ni madhab ay aqaid yoo xam ne madhab yooyu fasuñu ko loolu du moom sax waaye kilifaam yi ca kaw ñoo fen fen ba moom kon wax na ne lii domaine bi nga xam ne ci la nekk di xuus nii di labaka ñu koy génnee ca géej gi muy labati maanaam géej googu moom moo wax ne loolu du domaine am spécialité am nekkul ne ci la am ay diplôme am nekkul ne loolu la doon jàng itam jàngewu ko itam ci université bi loolu waxal na ko làmmiñam moom da doon teew ay dars ci xaram dar fiq lii moo ko def faq yi waaw dar moom moom ban bis ba benn bis lay am moom ci xaram ba waxuma la ci cadre fiq bi rek miiraas bii mu lab tey du doome na xamu ca dara loolu man maa ko xam man maa xam ne xamu ca dara dafa am nit koo xam ne bu jaaxlee day woo nit kooku laaj ko kooku ku foor la ci miiras daf koy foox woo laaj ko masala sàngam mu demee kooko tontu ko mu tontu ka mi ka koy laaj xam nga loolu naa fekk fa la ma ne yow doo wax ne xaw ma def ni may def man boo ma laajee dara lu ma xamul ma daal lay woowal man Badiane ah nangam de dañ ma ko diw mii moo koy laaj ma jox ko sa numéro pour mu kii la wala ma fari njaay nangam ci miiras mii daal nangam dimbali ca diw laaj na ma ko de man xaw ma ci dara laa ci xam te boo ko gëstu woon ci internet bi gis ko de boo ibbi woon téere yi te man ko waaye nag am na ku la ko gën a xam nga ixaala nit ki yóbbu ko foofu lan moo ci ne da war a xam lépp tey nga dee de danga wax ay wax ñu naan la du dëgg nga waxati leen ñu la du dëgg nga génnaat di laay ñun la laay bi du dëgg da ngay mujj fatu rek loolu moo ko daal li tax ma bàyyi nag wahabisme maanaam ma arrêté mooy jëmut kanam luy daanu jëm suuf la lu loo xam ne dangay ragal ne kii boo noppee dara ma na kii boo noppee dañuy gën a nërmeel dañuy gën a lab dañuy gën a torox dañuy gën a wàcc jëm suuf loolu mooy am loolu yàllaa ko dogal li kulli shay'in idaa maa tamma nuqsaan foofu lañ toll ñoom wàccuñ jëm suuf bu leen ñëpp bàyyee itam duñ dem fenn jëmuñu ca kanam ameloo kenn wax ko dara kenn xasu ko moom mooy daanul boppam bis bu ne waxoon na fi ci Ousmane dan foju ne Abu Habis la ci conférence bu mag ca Koweït ma génn wax ne lim wax nii dara du ci dëgg nit jël wax ji yóbbu ko ba ci moom mu dëggal sama wax man di waxam ne man maa nekk ci dëgg moom moom da koo gisoon ci ab ma ne même téere ba mu wax ne da koo gis sax du dëgg na indi téere mu indi téere bi ne al faslu saadis la nekk ma ne ko faslu saadis bii liir naa ko ba jeex néew ci mu ne waaye sëriñam ba jibril moo demoon màkk après mu tasir ci ma ne ko du dëgg man amul fenn fu mu mën a génn ba dara nekk dëgg ci waxam waaye nag bu leen xaar ci moom mu taxaw ne man dama juum loolu xaru mi nga xam ne dafa xaraam moom moom moo ko gënal loolu dama juum <laughs> kooku du génn ci làmmiñam mukk maa leen ko wax du génne ci làmmiñu ñi ko wër noonu man nañ ko wax ci suuf nag waaye kenn du génn ci bitti moom publiquement ne sëñ bi dafa juum abadan te ñoom kat ñoo doon wax ne loolu moo war am hmm, def leen ko bokk wax na fi ci wàllu sàngara te da ko fatwa nii ma dégg ko mu bind ko ci téere boobu téere tappale boobu ñuy tuddee alfatawa bind ko ci teelam wax dara du ci dëgg amul ci benn téere ci àddina waaye foofu la mujj ma wax ni lii mu wax ni amut fenn te mënu ko génne dara du ci dëgg du fiq du dara xalaati boppam la ràbb ni bind ko yab yàlla ak yonent bi ak borom xam-xam yi ak sharia ci boppam moo ko yóbbee lii sàcc na fi baxsub jàmbur ci wàllu salaatu tasbix ma wax ne diw sànga ma ko bind ca égypte moo tax itam bu jaaxlee day dem ci xaanuunu égypte ndax fa muy sàccee ay baax si jàmbur tam Égypte la laaj nañ ko fii ci masala alhamdulilahi lu tax booy tàmbali wax jooy tàmbali rek balaa ngay fat fatwaa dara luñ la laaj ka ne alhamdulilah door a tontu loolu moom fan na tege ci sunna mu ne loolu weesu na sunna xaw naa nekk waajib te du sunna de du waajib du mustahab bi itam du amul fenn fu mu nekk ci benn téere ku ko mën a génne amul wax na fi ci mbaa yàpp mbaam xuux tey mu daanoo ci miraas bu noppiwut nag kenn wax ak moom de moom mooy xalangu di daanu di xalangu di daanu di di daanu ba ay bisam jeex ci àddina mu jeexal mais amul fu muy jëmaat jëm kaw abadan jeex na moo tax nag ku yóbbu mën ngaa dégg nga seetaan maanaam banque say baaraam dégg nga croiser say loxo taxaw di seetaan moom mooy daanu di daanu di daanu ba mu na yàlla mu jële ko fi yàlla yeex kese mais ay tappale mu mënta continuer faw yàlla dana ko amal ab ab diir baatilu day falu waaye bu xaqu ñëwee ayam jeex jeex na moo tax man ma ma daal di xam na liggéey ba mat na amatul luñ cee defati ñoom ñooy gën a weer seen bopp di weerante ñii di njaaloo ñii di ñii di takk takku suuf ñii di tëddee dooyu jàmbur yi ñii di ëmbal ñu am ñu am ñu am jëkkër ba noppi dégg nga ñuy doxaanante ci weeru koor noonu la affaire bi di continuer la ñii di juum ci masalay xam-xam yi ñii di xalangu fee ñii di dem ca màggal ga dégg nga fañ doon bañ ñii da dem ca cant ga ñii maanaam loolu mooy am di am bañ ne wahabiste am ci boppam tax nit ñi fàtte nañ ko jeex na film baa ngi noonu ku yabu nag su la neexee mën nga seetaan lii ma la wax ni nga koy xool waaw ah, moo tax man itam maa ngi ci jeetaan gi rek mënees ne maa gëj a dégg asalaamualeykum wa rahmatullah